yu jëlee ndox mi di ko indi fii projet bii donc dafa bokk ci projet bi nga xam ne moom la ñu lënkaloo ak banque mondiale def ko muy li ñuy wax li ñu liggéey ci taset ñu indi fi donc ndox moomu fii waaye tamit fii ñu ko def dafa nekk sëlëbe yoon boo xam ne bii ndox mi jóge taset daf fi tase ak ndox bi nga xam ne ëllëg mooy jóge ci usine bu bees bi ñuy tabax muy Kër Momar Sarr trois li tax ñu def ko nag mooy que ne pour am sécurité ci ndox mi nga xam ne moom lañu yóbbu dakaar mi ñuy indi Thiès ak dëkk yi ko wër waaye dañ ko def tamit ci fi nga xam ne fala la toll soo ko seetee téeméeri mètre ak ñaar fukk la sutee Dakar sutee ñaar fukki mètre réservoir yi nga xam ne moom lañ njëkk a def Thiès muy fële ci boori école polytechnique loolu yëpp dafay may ëllëg su fekkee ne ndox manqué na dana am au moins rôle boo xam ne bii réservoir yi danañ ko joué waaye jëluñu ndox mi yëpp rek ne dañ koy yóbbu dakaar parce que dañoo seetlu ni fële ci taset am na ndox mu bari mu fay ball ci suuf ndox moomu bi ñu ko jëlee xalaat nañu tamit dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër ma wax ci benn mooy Palem Coyaan mooy Biri Biraan ak yeneen dëkk ak euh, Njas Palam loolu yëpp def nañ fa ay borne fontaine waxtaan nañu tamit wax nañu tamit Ofor ak Sones ñu waxtaan ci yeneen dëkk yoo xam ne ñoo nekk yooyu nga xam ne dëkk yu mag lañu nga xam ne ñoom ci ndoxu Ofor bi la ñuy nekk mooy hydraulique rural ñu seet nañ leen leen di yóbboo léegi ci hydraulique urbaine muy sànge muy jaxaar mbay muy kayra jander ak yenen deuk yo xamne yi ñi ngi wax pour ñu liggéey ci pour seet nan leen di yobbo ndox mom kon bo li nga xamne mom la bëna a wax moy li suñ ko défé président Macky Sall lim ci jublu ak gouvernement bi moy duñu xaar ba soxla bi taxaw defar investissement anticipation mom lañu def pour alimentation en eau Dakar Thiès ak dëkk yi nga xamne mom mo wër wala jegeñ leen duñ ci taxaw nag ndaxte ci plan bi gis nañ ne prévoir nañ fi yeneen ñaari reservoir yoo xam ne yi ëllëg mën nañ ko cee yokk def ko ci plan bi nga xam ne moom la ñu def tey jii liggéey bi nag lu mat fukki milliards ak juróom-ñett suñu boolee taxi yeeg yépp moom moo ko liggéey fukki milliards ak juróom-ñett yooyu yemul ci ñaari réservoir yi yépp dafa ëmb tamit li nga xam ne moom laa wax moy fukki forage yi station de pompage bi ak conduite yi nga xam mom lañu def ki nga xam nak moñu ci jappalé muy bor ci alal biñ ñu ko defaxee moy banque mondiale kon boo ci turu gouvernement bi dina gërëm banque mondiale dina gërëm tamit euh, SONES seen ingénieurs yi seen techniciens yi gërëm entreprise yi nga xam yépp ñom ñoo liggéey ci projet bi muy liggéey bo xam bi liggéey bu mucc ayib la ndaxte li nga xam mom moom lañ def ci réservoir yi gën gaa néew lu mat juróom fukki at seen durée de vie dana ko mat